waaye daal yaakaar naa ko njortu naa ko wala nit ñaa ngi wax rek nga wax wala nga ne man daal naa fexe ba lépp lu may def rek ma def ko ngir yàlla man na la indil ay musiba yoo xam ni ay tuuki doon lay jur ëllëg baat bi ma wax léegi nag man naa koo def ngir yàlla day rax nga def ko def ci lu nakar yalla te nga yaakaar yow yaangi ngi def ngir yalla ndax ñak gi nga ñak xam li nga wara def masalan man nga dugg ci këru jàmbur def lu ko nakari nga japp ne lu ko neex la fekk na lu ko nakari la ñak xam nak mo la ko yobbe non la la ko mëna misale ci li ngay jëflanteeg suñu borom man nga def lu nakari yalla te yaakaar def nga ngir fekk na def nga lu ko nakari te yalla ku ne war nga watandiko ah def lu ko naqari kon nag mu kàllaf ne Sëriñ Tuubaa nee la koy dimbali moy jëf jum mën a doon nga jiital ci ak xam moo xam fasub sëy la moo xam miraas la moo xam jënd ak jaay la jënd ak jaay bokk na ci li gën a te ku korul def daanaka amut xaw nga jënd mbaa nga jaay te boo jëndee te xamoo lañ ja santaane yaa ngi sa bopp ay musiba saa yooy jaay te xamoo lañ ca santaane yaa nga indil sa bopp ay musiba faw nga jënd mbaa nga jaay adduna bi ñaar ñi rek kuy jënd mbaa kuy jaay waaye koo xam ne jëndul benn yoon ba mu dund juddoo ba léegi mbaa koo xam ne jaayal benn yoon ba mu juddoo ba léegi yombut kon nag faw nga xam li ñu santaane li santaane nag mooy lan mooy lu ci nekk nga xam la ca araam ak la ca dagan xam la ca munta ñàkk xam la ca mën a ñàkk ndax saa yooy demee ci ab jaaykat misaal rek ne ko da nga may jaay lii mu ne la waa mën naa la koo jaayee ci nangam nga ne ko boo ma ko jaayee nangam de ma jënd lële loolu dañ koy tere wala ngay jaay loo xam ne ki nga koy jaay gisu ko masalan ngay jaay gileem gu rëcc wala aw aw nag gu rëcc wala jën gi nekk ci biir géej ga nga di ko jaay yooyu xeeti njaay yëpp dañ koy tere ak bokk ne ci njaay yi ñuy tere yow yaangi ñew fekk ba fekk ben way di jënd fayna na ci fukk junni fekk na yag waaji di jaay yéen a nga ñew ne ko diw fayna la ci ñaar fukk junni te ki neppegul te warna na la yow do jënd da nga bëgg xaptal waaji bam jënd rek yaangi ne ko fayna ci ñaar fukki junni te mom xam nga ne fukk junni la ci fayon te yow mi yag waaji di jaay yéen bok waaji da xamul ne yéen bok place bi kay kon su boba lu ñu harama la gën lool moy ñaayam bokki njaayum bukkee ngi noonu nga xam ne yow jëndoo da ngay xabtal da ngay xabtale mbaa nga ne ko fay nañ ma nangam te waxoo dëgg lu ñuy xaraamal lay doon bu ma ko yaatalee mën naa yaatu mën naa yaatu wàllu miraas nee nañ doomi njaaloo du doon doomi njaaloo du doon baayam waaye dina doon yaayam daaw ci heure bii am na lu ñu doon laam laame ci diw nee na ak diw naana waaye li am solo rek mooy diina ji alquran moo fi nekk ci la ñuy sukkandikoo ak waxi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak at yi nga xam ne dañ ko jëlee ci alquran ak xadis te ay borom xam-xam yu ragal yàlla tënk ba tënk teg ñett yi daal ci la ñuy dox lu ci bari nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ate woon na ko kon doomi njaalo li ñu xam mooy waajuram wu góor du ko doon waajuram wu jigéen lay doon ci liñ jàngal doomi njaaloo jooju nag yii saa mu dem ba doon mag doon taawu kër masalan ñuy ñëw mu ëpp ëpple fa alal borom xam-xam bi ñëw di war di miraas jox ko ab cëram mu indi ay musiba ba kookee doon miraas wala ñu ngi ko séqal ñëpp ñu yóbbu leen ci yoon ba yoon bi xamul dara ci diine daal koy sédd ab cëram mbaa ñoom ñëpp mu roof leen ci biir kaso kon nag su fekkoon waxambaane woo wii baayam jàngaloon na ko baayam a ko tooñ moo tooñ baayam moo tax kon xam lu ji lu am solo la ay miraas jëlante ay jaasi wala jëlante ay yat wala ay xeex xew na ci ay miraas ba tey wala ki doon miraas ñu bëgg koo rey wala ñu bëgg koo duma ndax lan ay gone yi jàngut bëggub dërëm lool xamadi seen borom ku ji àtt jaasi wala wala wala ak fetal wala sa loxo nar koo dóor ki doon miiras fekk sa baay bi mu làqoo yàggut xam nga ne yow li lay jàjjati dootul yomb kon nag faw gone gu sa karaw ñuul nga jéem a xam lu ji bul bokk ci ñi nga xam ne nag dañ naan nangam baaxul te xam ñoo koy def waxi yàqkat la bu doonul saytaane ci jëmmi boppam it mi ngi wër seytaane am na séeréel bu baax bu ma masa dajal ci àll bi mu am comme doon jàppanteel ne ñuy waxtaan tuuti mu ne ma diw day wër seytaane day wër seytaane maanaam li muy wax li muy def su ko dana dajeeg seytaane day wër seytaane nga xam ne bu dajeeg moom lu ne mën na koo def kon nag sa karaw a ngi ñuul jéem a la xam suñu borom nee na yéen ñi gëm yàlla wattu leen seen bopp wattandiku leen sawara te ngeen wattal wattu wattu loo ko seen njaboot fexe leen ba du ngeen dugg sawara fexe leen seen njaboot bañ bañ caa dugg sëñ bi xoolal tey ñu jàppale yow baay bi tëj la ci biir kaso bi yaag say doom ndax dan la neex te nga am kersa am looy rus am looy jomb ñàkkoo jom tolluwaay boobu soo ko seetantalee xool ko bu dee sa moroomam doomu aadama moo la ko mën a teg ngir ak jubadi naka la yàlla suñu borom mi la dënd subhanahu wa taala te na toroxalee ëllëg na mu lay mbugalee na mu lay ndax mën naa yem ak bi déedéet ndax sañ-sañ lay jëfandikoo ci yow kon nag man nga man ngaa man ngaa fàggu alal bu baax waaye cey bul fàtte mukk bul fàtte mukk sa ëllëg wutal bu baax wutal wutal ba am waaye bul fàtte sa diine ndax yaa ngi liggéey ñu di la fay waaye ndax xam nga liggéey bii ngay liggéey lan la ci chariatul islamiya wax awalan ndax dagan na saaniyan ndax xam nga li nga xam ne nii moo la ci mën a fekk ci lu araam ak li nga xam ne la ci mën a fekk ci lu dagan ndax bi nga waxee waa ji ne ko nangam lay jar li nga may liggéeyloo lii nangam lay jar lii nangam lay jar lii nangam lay jar te waxoo dëgg te xam nga ne li ko bindal nii waxoo dëgg daa am loo ci bëgg jariñoo ndax booba yaa ngi xam ne yàlla dan la ko atti ëllëg am déet bi nga ko liggéeyalee ba noppi la ca des sa bagage nga yóbbu ko te xamu ci dara boole ko mu fay lam la waroon fay ndax bàyyi nga xam ne yàlla dana la àtte ak moom ëllëg am mbir bi nga ko liggéeyalee dugal ci lu ci bokkut nga liggéeyalee ko liggéey woo xam ne baaxut te xam nga ne yow baaxut te yaa ko tey ndax xam ne yàlla dana la àtte ak moom déet yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne nii tey yow gone gi yaa ko mën a def métier yëpp dug na ci biir kon nag ah, li am solo ba am solo mooy nanga bëgg sa bopp bëgg sa bopp nag mooy fexe ba du yàlla du la duma fii ci kasa bi dikk am na ñu fay defagul ñaar fukki at am na ci ñoo nag dañu leen a am na ci ñoo xam ne nag ñoo tooñ waaye lépp rek ñàkk a xam cëslaay la ca moo tax Sëriñ Tuubaa ne yow gone bi fexeel ba bu bu la la yàlla santaane raw li yàlla santaane fexeel ba bu ko ñàkk xam lépp looy bëgg a def booy bëgg a denc soxna demal jàngi xam lan mooy attey denc soxna lan mooy li nga xam ne soxna si waroo ko koo wax bang koy ñàkk lan mooy li nga xam ne waroo ko koo def ba yàlla di la duma lan mooy li nga xam ne moo la war sa digganteeg moom ginnaaw ba na nga xam tudd tudd niñ koy defee bu ko xeeb ginnaaw ba na nga xam ni ñuy sangee am néew niñ koy jullee bari na baay boo xam ne nii sa doom faatu na te mënoo koo jullee bari na ci bàyyi yu bari seen doom làqu na te mënuñ koo jullee lu ko waral jàpp nañ ne àddina moom fàggutee fi mooy fexe ba jël liggéey ñaq ñu ne daa am jom am jom mooy lan fexe ba liggéey loo tabaxee kër fexe ba liggéey loo dencee soxna fexe ba bi seet nga am jël loo rekkee am jom waaye waaye bu loolu dong doon am jom yàlla di duma yéeféeri du leen xas du leen xas mukk ci at du leen xas mukk ndax fi ne bari na yoo xam ne nii tey lu waaye farlu farlu ñoo la ko ëppale roon la rekkay jëm lu waaye am am jëm ñoo ko ëppale te yàlla da leen a xas a xas a ba jéppi kon loolu du cës laay dëgg la nag dañ koy àndaal nit ki da koy yóbbaale man ngaa liggéey fexe ba am loo loo mos man ngaa liggéey fexe ba am loo sol man ngaa liggéey fexe ba am loo fajoo waaye nag bul fàtte mukk sa borom na ngay ñak faté ya sa borom nak moy fexe ba li ñu nga xam ko li dagan na li dagal li digle nañ ko li tere nañ ko lolu dal mom bu mu la raw mom mëno xamono lepp yi ci benn bis waye da ngay benn bennal dir bi nga tok yor sa appareil di manipuler benn nga dug nga dug TikTok wala YouTube wala WhatsApp wala yenen ak yenen ak yenen yo xamni ni tay man nga ko man nga ko jëfante sa portable bi digënté bobu so demone jàngi soo laaju woon soo déglu woon di nga xam loo xamutoon te diggante bi ngay jéego di dem di xam lu ji ci sa wàllu diine sa diggante ak sa borom wax nañu ne soo fi faatoo buñ la robee malaayika yi danañ la ñaanal suuf sin la denc dana la ñaanal xobi garab yi di la ñaanal duusi géej di la ñaanal picc yi di la ñaanal mboolem lu yàlla bind di la ñaanal lan la ñuy wax yàlla yàlla na ko jéggal te yërëm wax nañu sax waxtu wi ngay jàngi sax loolu day am jën yi ci biir géej gi di la kon nag ah, président bi ci boppam bi jiite réew mi wallahi dem dem xam loo diine yomb ko buñ fekkoon président mu toog ci biir jàkka ñu di ko jàngal muy xam billahi kenn waru ci yéemu def na li ko war def na li ko war li koy may jàmm ci biir bàmmeelam jëlal naa nag waajur bi nga xam ne moo moo mooy bàyyi ñi nekk ci biir kër gi jëlal naa waajur wu jigéen président bi jiite réew mi la wax suñ ko fekkon ci bir barab mu tok di jang di jang luy taxu ëllëgë yalla bañ ko toroxal def na liko war kenn waru ko film ma nga ko yëm dafa def rek liko war ndax ku ne war nga bëgg sa bop te yalla ñun ñun ñoy ñun ñoy réyante suñ bir maam ñu diw da daraja ji la amé diw daraja ji la amé diw daraja ji amé mu doon adina mu doon ci adina waaw ndax ku ne ni tay bi nga gisee waa am ala amna nu muy toll ci yow amna noo ko gisee am noo koy nga gis ku ñàkk am noo koy gisee am noo ko am noo ko jàppee loolu ba tey nit ñi dañ koy dund ñu ko nag tayuñu ko bari na ci ñoo xam ne tey gan gi am alal bu duggee ci seen kër buñ ko tàmmee ba tàng tàmm ko dañuy mujj ñàkk kersa sax ba dañuy wax ñi nga xam ne ñoo néew doole ñu ñàkk ñi te di leen fekk si lu bari da ngay gis ñu randale leen ne leen dem leen neen ba bañ noppi te duñ ci am sax kersa te moo na am na jamono ñoom ñu koy def dañ leen doon dimbali mas nañoo jaar si jaar ci lii ñu xeebee kii ba àndale ko jotaay bi ñooñee duñ mën a bokk ñoom aw ñam ñi am alal bari la ko lool ak nuñ ko mën a amee ñu bokk ñoom ab ceeb bu ñuy tibb mbaa ndawal gu ñuy dagg mbaa ay kaas yu ñuy xel mbaa ay furwi yu ñuy xolli moo leen daqal téeméeri junni yoon aji ñàkk ji ñu bokk moom donte diine mooy bi yàlla gën a gërëm gërëm tawat la joo xam ne ñi ci mucc bariwul moo tax yàlla bi mu ci bëggee musal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn gumba daa ñëw ci moom di ko laaj ci diineem mu fekk fa ay nit ñoo xam ne bu doon tey dañaan leen ay homme d'affaires lañ ñu tedd lañ fañ ñëwoon ñu bari la lañ ñooña nag wala boog ñooñaa ñëw ñooñu biñ ñëwee fekk fa kooki yonente wala boog kooki ñëw fekk leen fi boog bi mu koy laaj yonente bi xaw ko du mooy ngir bëgg wax ak gaa yi yu mag yi ci walu adina luy tax ñu dugg ci diine ji ba tax mu du moy ki nga xane ak gumba la te taxul pagu defam ci adina bari bam ko du moyo ba ko kooka dem sunu borom dako dako yar abasa wa tawalla an jaahu al ama wa ma yudrik laallahu yazakka aw yadhakkar fa tanfaahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda mu ñëkkal na moom de moom de mi ngi dummóoyu ak a ñëkkal xar bi ko ak gumba dikkale an jaahul ama lan moo la xamal ne la gumba gii di la dikkal xol bu laab bi ci moom ba tax mu gëm yàlla doonte ay bëtam gisul kan moo la wax ne la ñii bari alal lool ba seen jëmm di di nëtëx ak liis ak a rafet ñoo gënal yàlla jëmm ji bam la umpalee rek nga waroon a yamal mbaa boog lu mu gàtt nga jël ki gëm yàlla féetale ko kaw bañ koo féetal suuf أما من استغنى فأنت له تصدى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى عبد الله ابن ابن مكتوب فلا ينتهي بالتأمينة بقصر بلال ابن رضاح سهيب الرومي سلمان الفارسي أبو أبو الدرداء فقراء الصحابة صحابة يفهمون يوحنا جون يكون لول واي وين مثلا توغ يوسين خيت في يرم في دالي خوي توت نيرو نياك نيو نياك suñu borom dafa wax yonente nga toog ak ñii seen xet di gilli di la sonal moo ma gënal fop nga toog ak ñoo xam ne ni xet yu neex lañ yor alal ju bari lañ yor te seen xol yi laabut kon bu ko defee foofu jàngat la bind la ndax ñu bari xëy nañ xëy bàyyi jàngale te ko sabab mooy poña xëytum àddina ñu ñu bari xëy nañ xëy bàyyi waare ak jiite jiite julli masana te dara yóbbee ko dul poña xëytum àddina te la nga bàyyi moo gën fopp li nga jëm waaye loo gën a xabtalu ci li nga jëm seytaane di la gën a di la gën a joow ngay gën a dem mu ngi mel ne ndox rek ñu lay gën a joow ngay gën a dem te xamoon ni ñuy ni ñuy ni ñuy feeyee ci ndox bis bu àggee ci lëgg lëg ba ba jaaxle ndox mi dugg ci sa gémmiñ gi fees dell sa nopp yi nga yuuxu te kenn amoo kenn ku la wallu dee ñëw foofu ngay xamee ne misaal moomu laa la mën a joxañu ci dugg ci biir àddina dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg te xamoo woon ni nga ciy duggee moo tax ñu ne àddina géej la àddina géej la faw nga xam ni ñuy fee ci biirum ndox nga mën a dugg soobu ci biir àddina kon nag loolu lépp ay fàttali rek ay soñee la waaye du xas kenn du doydal kenn du tuutal kenn ndax man mi koy wax su ma ko defee bu ma yàllay duma ci kanam ñi ma ko waxee la mooy duma kon kenn tanewu ci kenn li ci waaye di tane nii daal mooy fexe ba li ngay wax nga di ko def li ngay tere nga di ko ba kon nag waxambaane wi daal li gën ci ak dundam mooy na liggéey ba am àddina waaye bu mu fàtte boroomam bokk na ci fàtte sa borom nag mooy ñàkk a xam sa warte fi diina ñàkk a xam sa warte fi diine kuy jomb nag jombal loolu dëgg la danañ la xas danañ la xas ndax dañ naan diw am na jom lan mooy jomi diw mooy fexe ba dajale àddina te am na ci ñoo xam nañ koy dajalee li ñeenti wuñ ko de yàlla xam na ne mën nañ mën nañoo dëkk ci naxaate di indi rek bu ko defee ñi ñuy indil di yëg ak ak sac di yëg ay ay tagg di ak jàmm jàmm bu ko defee ci loolu rek la ñuy yem waaye duñu xóotal seen xel ba xam mi ngi koy amee ni mu ko war a amee wala déet loolu lépp duñ ci àgg benn bis dañuy toog rek ñu indi ay jafe-jafe ay borom oto yoo xam ne ñu ràññeeku lañ borom yëre yoo xam ne ñu ràññeeku lañ te ku leen gis daanaka lu ci ëpp da ngay tiit ñu ne ah sa doom de lañ soxla woon wala sa rakk lañ soxla woon wala sa mag lañ soxla woon ñu indi la jafe-jafe bu dul jeex. teraanga ji mu doon indi nag nga bëggoon ñëpp xam ko tey ñu indi la jéey ju réy joo xam ne bëggoo kenn xam ko nga rus am kersa lool bañ mu kaw kaw laa xam bii mën naa jub kaw yenn mu dem ci suuf yenn nga jël ci bind nag tàmbali koo yedd tàmbali koo teg ci yoon di ko xamal ne ko addina kat boo fi nekkee ak njub moo gën a wóor ndax looy nëbb lu ne te du dëgg bis dana feeñ te su boobaa mën nga caa am mbetteel te say noon mën nañ laa te su boobaa lépp loo defoon ci lu baax day mujj ñaaw kon nag bu ko defee ah sa karaw ñuul la wala mi ngi bëgg a weex bul fàtte li la yàlla teg wartee fi mu la teg bu ko fàtte xëyal fàggu gontul xam luñ bu la rawee mi ñuy xam loo nag na loo bëgg a dugg lu mën a doon laajal luñ ci santaane ñu bari dañ koy def ndeysaan waaye am na ñoo xam ne moom dañuy mbëkk seen yoon nekk dañuy mbëkk rek ba keroog ñuy faatu seen yoon nekkul ci li ñu leen sant li ñu leen santu ñoom daal lañ xam mooy xew na nañ ko dund ba mu jeex rek xaw lekk naan tëdd yeew solu asimiku dem ñëw ñi daal lañ jàppee àddina tawat faju demul ci loolu nag ndax sa sa yaram yi ni war a dundee sa ruu gi noonu la war a dundee li lay xamal ne nag loolu ëpp naa ëpp naa wéy di dem mooy ah jox naa ko misaal ba tàyyi am na ci ñoo xam ne nañ seen kër ba taay ba mu àgg fii ci Touba yenn saa yi da dox ba mu yàgg soo amee xel laaxa de te nangoo xalaat te xam lu bari soo dox ci biir Touba ak yeneen dëkk yi ci Ndakaaru fu ne da ngay dox ba mu yàgg daal jooy da gis ku ak dox ba àgg ci kër taxaw di jooy jooy métti gars yi ne ko looy jooy mu lànk bañ koo wax fekk ne li muy jooy mooy borom kër gi nim ni mu ci këram coono dim ci def alal ji mu ci def ba noppi faar dem ba ko te yàlla xam na ne bëggoon na ko dëkk nit ñi ñoo ñoo ñoo rek nan, xamoon na ne day def waxon nak ko li mujjee wax billahi waxuñu deug amna na ci lo xam ne ku ko xam yalla xam na ne do doo def yene yene jëfin yene yi ku ko xam do def yene man suma ti don kep di bëgg dem ci kasso ba amna ci yu bari dama koy duma ko tal sax nan nga bëgg jëm ci bammel nak tàmbali def yene tafar yu reey kon amna ci lo xam doomu aadama bi koy wax degeeru fit ak yagga wax moko yobbe way waxu deug loolu nag nit xam ne mi ngi dem sax daanaka daa tegtalewul ak mucc daa tegtalewul it ngërëmal yàlla ndax wax nañ nit ne ko di nga dem moo xam ne day dem te gëmul yàlla te ay jumtukaay rek ci lañ ko xamee kon loolu tegtalewul ak mucc tegtalewul ne ak am na ngërëmal yàlla tegtalewul ne kooku àjjana la jëm li am solo ba am solo mooy kon nag waxambaane nga góorgóorlu wutal li ma wax maa ngi koy waxaat wutal bu baax fàggul jugal fàggu ji boy fagu fagul, fàggi win rafet deureum bi nga am ci lu lew bu ko xeb bu duggé sa bir ak jaamu yalla bu ñaké sa yaram yalla mën la faral sa bakkar yu jëkk ak yu mujj ndax Fagul ci bakkar yo xamné ni nii lu lew rek moo koy moo koy moo koy moo koy moo moo koy dindi ci yow lool wax nañ ko gi nga jug di sonn ci lu lew kon nak ah wutal waye na set bu bul fatimu ko sa borom moy na nga jangi na nga jéem a xam sa diine ji sa diine boo ko topp yu bari di nga dem ba rëccu yu bari day fàttaloo kon nag yi yi fàttaloo bari na waaye mën naa ci yem foofu sëriñ Tuubaa nee na wa fil kitaabi fas aluhu ahla dikra tuuba liman hamma bi ilmin za nazar yàlla nee na bu ngeen xamut dem leen laaji yàlla nee na bu ngeen xamut dem leen laaji te képp koo xam ne loo xamut di ko laaji looy bëgg dugg di nga xam lañu santane mucc nga adina te mucc nga alakhir te da nga dund dund gu neex fi da nga dund dund gu neex fa nga jëm wa man tajarrada li taati al jalil qabla taallumin fa ghumdun la nabi kep ko xamne yaangi futti ko ne da ngay top yalla da nga sóobu day am nit ko xamne da dane bëgg da da bëgg ag ci yalla masala wala da bëgg melokan yu bon yim melon mu dañ am na ñoo xam seen xaju dund gep dañ ko njaaloo am na ñoo xam ne seen xaaju dund gépp dañ ko sàcc am ñoo xam ne seen xaaju dund gépp dañ ko naan sànga am ñoo xam ne seen xaaju dund gépp naxee rek lañ ko doon dunde am na ñoo xam ne rey nit rek am na ci ñoo xam ne ngóor jigéen rek am na ci ñoo xam ne am na ñoo xam ne ila axiri muy baree baree bari li tax ma di ko tudd nag yii saa nga wax ko nit déjante moom dégg ko daal di deltu ginnaaw loolu rek lañ ci jublu waaye du du sulli ay bi kenn ndax yow mi koy wax la nga def xam nga ko nit nag boo boo dee as gor di ab nit warooy wax loo xam ne nii tey da koy def ba noppi di ko di ko tere baa nga koy digle ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun yéen a ngi digal nit ñi lu baax ba noppi lànk bañ ko def di tere lu bon te fu leen fekk ngeen di ko def te yàlla waxu leen mukk ne leen li may àtte nii da ngeen cee génn kooku ak ndefe la kon boog la ca am solo mooy fexe ba a ah, boo jógee ne da ngay topp yàlla te xamagoo li yàlla santaane ab dof nga buy wëndeelu boo doxee ñeent fi at na la wóor ne fi nga xëy si fi nga xëy woon fi nga gont si kon doxo kon nag jéem a xam wax nañ ne benn borom xam-xam bu góorgóorlu ba xam mën naa xeex ak junni seytaane benn borom xam-xam bu góorgóorlu ba xam mën naa xeex ak junni seytaane benn borom xam-xam bu góorgóorlu ba xam ñaari rakka moo kawe junni rakka yi nga xam ne ki xamul ni ñu koy julli yonent bi ne keex góorgóorlu ba xam. ni ma gënee ci sama xeet ni la gënee mboolem ñim gën a xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na giir giirug lumu giirug lumu xeetug lumu bu faatu li muy tiis tiis benn borom xam-xam bu faatu te ragal yàlla moo ko gën a tiis kon fexe ba xam wax dëgg yàlla am na wàccuwaay xam-xam yi nag bari na waaye bi benn bi bi nga xam ne benn féetu ko kaw mooy xam liy tax sa digganteek sa borom nga mën a ni sa digganteeg sa borom lay tax nga mën a xam ba mën a jëflanteeg moom lu mu lay gërëmee te wattandiku lu mu lay yeddee ëllëg xam-xam boobu benn ëpp ko dool te benn féetewu ko kaw mën naa am yu ñi xam yëpp baax na waaye bii moom waroo koo desal ginnaaw te ñu ngi yëkkati ay xeer xam-xam ci àddina waaye xam-xam yi nga xam ne mooy maye ngërëmal yàlla ëllëg ñu bari dañ koo desal ginnaaw doole luñ ko fullaa luñ ko joxuñ ba tax ñu bari nda wuti xam-xam yooyu nga xam ne poña xiitum addina bi muy indi tax nañu yaakaar ne bii jotul nga ci sonal sa doom ndax boo ci sonalee sa doom ëllëg dula la mën a dimbali te bari na ku sonn ci doomam lool ci dimbali ko ba mu àgg ci àgg waaye njàng yi gën a kawe xëy mu génnee ko réew mi ba mu demee ba war a am lu mu ko mën a dimbale baay bi daal di faatu bako kon nag am na ci yoo xam ne moom boo koy def jiital yàlla suñu borom ومن تعلم بلا معلم محقق فانه ذو وهم كيب كو خامني ياغي جانغ تا كلي جانغال خمول لم لاي جانغال لو نرا واخات نيل ديفناكو فاجتهدوا في العلم يا اخواني وطاعه المولى بلا توان نانين غورغولو بو باخا باخا باخ تي خام يين سماي مبوك اك جيما توب يالا سوني بوروم تا بنج كو ييخه كون بيم ني خام اك توب يالا رك وور نلا ني خام خام بولاي تاخا مانا توب يالا لا جوبلو واخ كون لولي نيسان لو متا باي خيل من فاته العلم ما الطاعات فسوف يعلم لدى الممات كيكو سجن بجدو خم دوغ سبير بامل مال يرم واخين وو نون لاكو مانا واخين غير مو مانا ام جيخت تيو كيب كو دوغ سبير بامل تا جدو خم نينا نيخول بنيخول واي دي ريتش ناخ نياتا ات nga def ci adina ben bis bi ne def ñaar fukki waxtu ak ñent wenn waxtu wu ci nek def juroom ben fukki seconde bu ci nekk def juróom benn fukki minute nga dund weer mu def fanweeri bis mbaa ñaar fukki bis ak juróom-ñeent nga dund at at mi des def ñetti téeméeri bis ak juróom benn fukk ak juróom nga dund ci ñeent fukki at li yàlla wax xamoo ci dara lool nag yow bu kenn bu la kenn yeddul yow war ngaa mën a yedd sa bopp bu la kenn jooyloowul nga war a jooyloo sa bopp waaye nag lii ñuy xeeb bari na ñuy xeeb alquran ak téere bi yàlla bi ñaara ci am benn waaye bu koy ngir da koo xamut ak ku koy xeeb koo xam ne ni tey daa dund ak mon mbon ba ab xolom wow mu bañ nit ñi xam li ci biir mu di ko xeeb loo nit ñi ngir ayibam bañ a feeñ gis ñaar taxaw ci benn barab kii jub kii jubati kii jubati bañ ki jub lool lan lan moo tax day feeñal ay ayibam ci benn ci benn mel woo ko am xel di ko xam moo tax mu koy xeex faw dana fa jóge mi ngi mel ne saay-saay bi ne ci biirub lëndëm toog di def ay caaxaan simee ko ba set moo kam koy defal nga jël lampe bu leer ne ko tay ñëpp di ko seen waaye waaye bu jógee bu la dóoree bal mu la bett kon nag sëñ Tuubaa nee na képp ku jugati te bëgg àgg fa nga jëm royal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca nam xàllee woon nee na kooku day yaakaar nañ am tinoom ëllëg ak mboolem ñi nag boo ko boo ko fekkut nga fekk fi roy nee na ba tey toppal ci moom nee da ngeen moy moytandiku sen banexu bakam banexu bakam nak moy lek ba sour nan ba mandi tëdd nelaw ni nga bëggee ah denc ni nga bëggee te li sa digënté sa war xamoo ci dara kon nak bu ko defé ah ab soñé la ab fatali la ci waxambaane yi batay ma ngi wax ak ay waxambaane ndax ki nga xamné ni mom li ak dundam lu ci ëpp rëcc na kooku am ci ñoo xam ne seen xol dafa wow ñoo ko ñoo waxal lo wax wax duñu dégg dangay wax ba noppi yow yow mi wax ñu bëgg a indi ayib yoo xam ne dañ la koy sës pour yàq li nga wax te fekk na man man mi doon wax lu ma wax lum kawe kawe kawe kawe li ma wax lum baax baax baax baax baax ak loo ma mere mere mere ci ne ma waxee bis boo fexe woon ba gën ma ba tilimal ma ci àddina bi la ma wax bu doonee dëgg du tee soo juyee li ma wax gis gis du may suñu borom kon fexe ba yàq kii wax yàq ay mbiram da ngay gis kii wax koo xam ne dañuy fexe ba yónni benn waa joo xam ne ko mën a la mu fexe ba yàqal ko benn ñu boole ko nit muy wax ak moom wax yooyu ñu def koy siiwal wala ñu fex fexe ko posé na am na ci waxkat boo xam ne nii canette euh, biñ ko jox euh, biñ ko naanee biñ noppee ci lañ ci la gërëm àndul ak sagoom ab diir bu yàgg kañ ko boole ni simmi ko ba mu seet foto ko jëflante ak moom te moom bi mu ximmili ko xamu ne def na lool te fekk liñ ci jublu woon mooy fexe ba lim doon wax ñu ne du dëgg fekk ne lim doon wax dëgg la waaye lii mu def moo du dëgg fexe ba waa ji li muy wax fexe ba yàq jëmmi waa ji taxul nga yàq ay waxam duma ci kaw duma rek lay doon moo tax li am solo mooy su dee li muy wax neexul ñaanal yàlla suñu borom bu dee li muy wax dëgg la nga di ko dund su dee neexul sa xol nga yàlla nga ñaan yàlla mu neexal ko ci sa xol ndax ay tawat la rek ay xeet tawat tawat day gën a yokkaan kon bu ko defee boo duggee ci yenn barab yi da nga gis waxambaane wuy naan sàngar di doregaw di rey nit da cay yàgg ay boo ko dellu soo boo boo mënoon bu dellu soo démbam ma ne ko ñaari melokaan yi bu la dàqal démb bi nga laataa ngay naan sàngara ak laataa doon rey ko tam nit ak tey bi ko doonee mu mën la bële te loo lum la mën a fayee ko ci loo mën a fayee ko ci xaalis doo ko amoon mu jox la ko ngir dellu si waat fële kon doomu aadama bi firiwut ne daa bëgg lu bon waaye yenn saa yi dañ koy juum loo ba dugal ko ci waaye mu lab ci biir mënatu mënatu caa génn kon nag yooyu yëpp ay fàttali la sa dund bu ko jeexal ci football sag dund bu ko jeexal ci lamb sag dund bu ko jeexal ci way sag dund bu ko jeexal ci rab li may wax lu mu la naqari naqari naqari lu mu doon doon loolu diis bu ko bañ a dégg xoolal ba rek dëgg la wala dëgg boo wóoree na dëgg la dellul ginnaaw su la wóoree na du dëgg nekkal ci li nga